di sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke yàlla ngërëmul yàlla di wàcc ci moom li fekk doomu aadama ngi dox ci kaw suuf di ñaanal jëwriñam ji ko fi nekkal di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Salihu yàlla ko sun borom may fan wu gudd waa ànd wér mbokk yi ñu santaat yàlla ci toogaat ci jataay bi nga xam ne jataayub ndigal la di jataayub xéewal di jataay bi nga xam ne moo lëkkale taalibe ak sëriñam te mooy jëfe ndigalam bàyyi ay terem di jataay boo xamante ni bi jataayub xéewal rek la muy lëggéeyal lislaam sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Saliou baaxoo di ko def at mu jot te mooy saa yu tool yi noppee mu woo bokki taalibe yi ak bokki jullit yi ak jege ñaale yi ak bokki boppam yi ne leen kat ndabul lislaam li nga xamante ne bii moom leen daan togg ñor na dama bëgg ñun ñëpp ñu bokk ko. loolu mooy liggéey boo xam ne lépp day delluwaat ci daara yi alxuraan delluwaat ci dongay tërbiya moo tax Touba Darou Salaam ñu gën koo miin ci Maodo Mouride dugub ja noppeeti na ñu toog fii ci kër Serigne Saliou feggoo ak doomam di jëwriñam di Serigne Abdou Lahad Mbacke moom moo Modou moom Serigne Abdou Khadir yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ànd ak wér moo ànd ak ñim ko baaxoo àndal ñëpp ñu fas yéenee woote liggéey boobu nga xam ne al ajuma la vingt cinq octobre deux mille vingt quatre moo war a nekk départ bi ñu fas ko yéenee jox kàddu nag mu soññi bokki jullit yi ak bokki taalibe yi ak xarit yi ak wëlëri yi ko daa baaxoo jàppale Serigne Cheikh mu Serigne Saliou su noppee ñu jox Serigne Moustapha Diakhaté miy wax ci turu mbooloo mi na liggéey bay demee ak na daar yemel ak muñ fa àggee nan nan lañ fay liggéeye loolu lépp dañ ko dégg incha allahu rabbi kon dañuy bàyyee kaddu gi ak Serigne Abdoul Ahad moom Serigne Modou moom Cheikh Abdoul Khadir Mbacke moom Serigne Touba Khadim Rasoul. ñu ngi di nuyu. lislaam di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa sunu waajur. sunu sëriñ sunu wasila sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké moom sëriñ Saliou ci ndigalam ñu ngi nuyu ñëpp. di jot ay kàddu yoo xam ne ci moom la bàyyi ko bii nga xam ne moom la ko sëriñ Saliou bàyyee daf leen yóbbante ay cant yu yaato yaatu ak i ngërëm. tàmbalee ko nag ci ñi nga xam ne ñoom la dëkkal ca gox boobee ñuy bokki jegeñaale ba noppi di bokki ay taalibe ba noppi di ay dëkkandoo wala ay wóllëre ñu dëkk ca Daaru Salaam ak la ko wër yëpp dañ am lante woon ak sëriñ Saliou ko woon ak sëriñ Saliou àndoon ak moom liggéey bii mu woote woon woote bu mag bi nga xam ne moom Serigne Saliou woote woon yeesaloon ko tamit woote Serigne Touba bi ba ko sëñ bi wootee ñoom ñëpp mag ñooñu ñëpp àndoon ak moom liggéey bi ci bokk ak ci kóllëre ak ci dëkkandoo ak ci cofeel waaye dafa wax ne gannaaw bu sante ñëpp mu ngi woote liggéey boobu yi di sàkku ci njaboot gi yëpp Euh, nañ ko daa defee liggéey ba noppi na euh, nañ ko daa defee rek kawe na njortam mu sàkku ñu defee ko noonee euh, tey ñaan nag hmm, foofu sax laa waroon a tàmbalee Serigne Saliou suñu borom dolli ko ngërëm gën a ful ab liggéeyam te gën a sàmm njabootam tàmbalee ko Serigne Cheikh mu Serigne Saliou mi yàlla yàggal ko fi bàyyi ko fi lool. ba yeggale naa li Serigne Saliou yëpp tan ànd koog moom jëwriñ yi nga xam ne ñoom lañ ko daan àndalit tàmbale ci sëriñ Saliou si Abdou laa ak sëñ Bay jóob ak mboolem Baye Mass ñi nga jëwriñ sori ci lim bi sëñ Cheikh Sakho mi moom laa doon bëgg a mi nga xam ne moo mujj démb mm-hmm. euh, ak mboolem koo xam ne daanañ ànd moom liggéey bi tam wute ko rek mm-hmm. ñaan yàlla suñu boroom yërëm leen te jëggal leen te tàbbal leen ci àjjanul firdawsi euh, te bàyyi fi njaboot giit ñu ñu ñu ñu ñu ànd liggéey bi lu yàgg yàgg yàgg waaw loolu foofu lañ doon waroon a tàmbali sax wax ji waaw buñ ko tàmbalee foofu ba noppi nag maanaam jot li kàddu sëñ bi mooy liggéey boobee la bëgg ñu defe ko noonu ñu ko daa defee euh, gannaaw bu sant gërëm la ci tur ci ndigalu sëriñ Abdou mm, ñu bokk soññante ñun ñëpp rek ci liggéey bi nga xamante ni sëriñ bi teg na ko ci loxoom muy sun jëwriñ di sërum sëriñ ci liggéey bi muy liggéey ban ci Touba Daaru Salaam mm, Maodo Murit di boo génnee Xelkom ba romb tu Daaru eh, jaar yoonu Daaru Minam Saloum dem Touba Aliya eh, dem Touba Jaawara daarul musti goog suñu Abdou Samad si doog a àgg Touba Daaru Salaam mu mel ne tool ya noppi na di tool yoo xamante ni wëri nañ ko suñu borom dewal na sell na yaatu na kon waajal ko baax a baax lañ koy waajalee nag mooy lan képp kuy jóg di jëm ci xare rek da nga yóbbaale jumtukaay yoo mën a gañee jumtukaay yi nga xamante ni moom lañuy ñuy la ci jiitu mooy ngóobaan nan fàggu ay ngóobaan jëwriñ ju ne fàggu loo xam ne wóor na ko ne ëpp na lam andi ci aw nit ci ngóobaan fàggu ay takkuwaay ndax dugub ji dañ koy takk sëpp ko dañ koy takk takk bam dëgër ñu ñëw ba ci jàggu sëpp ko doonu lu ñuy jàgg ci biir dagg bi ñu bàyyi xel ne dugub ja xaw naa gudd nan farlu bu baax ci bañ a yàkkamti xool ci kaw xool ci suuf xoolit ci diggante bi damu ndax mbooloo ñu duggee ci ci barab ñii dañuy tëral ñii ñii dañuy dagg ci kaw ñii dañuy mën a tëral kon nañ bàyyi xel ne la fa yóbbu mooy liggéey bu set bu sell ñañu fa bàyyi woon daaw muy suñ mbokki donga ya ñoo ñoom lañ fa fekkaat te fañ leen bàyyi woon ña nga fa ba tey kon ñetti fan yañ fay am bu ñu yàkkamti ci sellal liggéey ba nan ko defee nanu ko bëggee ndax moo ñuy dimbale ci ñu daje ci ngërëm te mu ngërëm rek lañ fay sàkku kon nan bàyyi xel ne ngóobaan yi ak takkun yi wata yi nga xamante ni ñooy indi mbooloo mi ñu bàyyi xel yoon wi ndax ab raaraan la te ci nawet lañ génne te bari na ay xóot-xóot yu xaw a am tuuti ndox su fekkente ne ndox dooli doolikuwaat na ñu gën a def ndànk ci xóot-xóot yooya di daw ndànk di bañ a tegloonte ndax pënt pënd bi. wooteeb sëriñ bi sëriñ baa ngi ko jaarale ci jëwriñ yi nga xamante nii ñoom ngeen di dégg ñoom ngeen di gis mbaa ngeen dégg ñu tudd seeni tur. ba képp ku xamante ni dégg nga seen woote rek na nga xam ne maanaam wooteem boobee mi ngi ko sofe ci ndigalam kon képp koo xamante ni jëwriñ yi nga xamante ni ñu ngi leen di tudd mm, euh, na nga xam ne ak wooteeb googee moo dugg na ci biir wooteeb sëriñ bi ka jëkk di sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Modou moom sëriñ Abdou Khadir ka ca topp di Moustapha Diakhaté moom sëriñ Mouhamadul Khayri Diakhaté ka ca topp di sëriñ Cheikh Modou Fall moom sëriñ Mbacke Fall ka ca topp di sëriñ Kër Ñang ka ca topp di sëriñ Ibrahima Ngom Bokhatul Mubarak sëriñ Xaadim Tin Mbacke Bawol sëriñ Pape Fall ak sëriñ Ousseynou Sakho ca Thiès ak région Thiès gépp sëriñ Assirou Wade ak mboolem waa Kaolack sëriñ Xaadim Naar ak Fatick ca sëriñ Fadilou Tin ca Santhi Darou Salaam sëriñ Bàcc Mbodj ak sëriñ Daouda Mbodj ak mboolem waa tund Agnane boobu yëpp sëriñ euh, Moussa Ndiaye. ak sëriñ Saalihu Jóob ak mboolem tund waa Mbuur gépp sëriñ Boubacar ñing di ñu gën muy muy muy di sëriñ Boubacar ñing moom sëriñ Maas ñing ak mboolem mm, waa Baxdaad kon képp koo xamante nii yaa ngi dégg ak woote na nga xam ne ñii ñooy jëwriñ yi nga xamante nii ñoom la sëriñ bi jox ndigal képp koo xamante ni dégg nga seen ndigal rek na nga xam ne mm, mi ngi sof ci ndigalul sëriñ bi képp koo xamante ni yaa ngi bëgg a ñëw ca ca tool yi muy jëwriñ yi fi daje ak yeneen jëwriñ yoo xamante ni dañoo bëgg am lu ñu bëgg a xam ca lu leen fa yóbbu nañu woo ku ñu wax sëriñ Cheikh Mbacke fal ci numéro bi 77 570 24 20 wala 76 470 85 19 képp koo xamante ni yaa ngi ñëw Touba Darou Salaam muy guddi muy bëccëg te bëgg ku la gindi ba yóbbu la ca tool yi mbaa ca dal ba. na nga woo Serigne Malick Samb 77 202 602 77 602 65 00 wala 76 627 81 60 képp koo xamante ni yaa ngi ci biir tool ba wala nga nekk ca biir Daaru Tansil nga bëgg faa ñëw moom itam wala nga am loo bëgg a laaj wala loo xamante ni ñëw ko ba ca tool ba am lu la man ngaa woo Moustapha Diakhaté 77 641 13 77 wala 76 692 08 04 sëriñ bi nee na mi ngi woo mboolem tundu Saloum di woo mboolem région yi ci Sénégal di woo it mboolem département yi ak arrondissement yi foofu nit nekk rek sëriñ bi nee na mi ngi lay woo ci liggéey bi di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te wéral ko. te itam yeggalee sagamam ci barkeb Sëriñ Tuubaa te ànd koog moom te liggéey bi yàlla nañ ci dajee ngërëm ak ndimbal